asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah inna lillahi wa inna ilayhi rajihun waa loolu nag waaram sëriñ Sidi Maxtaar Mbàkke moom la ñuy ñaanal yàlla yërëm ko jéggal ko xare ko aljana ndax nag biig dafee bàyyee ko wuy boromam ñu di ko ñaanal yàlla njéggal bu baax a baax di ñaanal yàlla tamit mu taaf ñu si barkeem waate ñu fi des mu yàggal leen fi di ko jaale julliti réew meek ak muriti àddina bi yëpp di leen ko jaale waaye tey mercredi di suñu lamb commencé a géej waaye yëglikaay bi daal nee foofu moom boo bëggee dëgg dëgg dina tàng jër jër jër ndax diggante moo doog lak combat bi ñu jëm moom combat bu nar a méttee méttee a ba yegg ca lool ndax nag ñoom ñaar dañ dul mayante dara ndax ku xam nag fañ jóge woon war a jëmaat ci combat le 28 janvier moo tax combat bi nar naa méttool yëglikaay bi di làmb moo ci ñëw ci mardi ba tey loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci mardi ji maanaam laamoon Iba Mar ci kaw ak Ama Baldé dañ fa doon jàkkaarloo de waaw Assane Ndiaye Baol production nag moom moo tëg loolu la woon nag yëg bi bi am ñu mu bi daal ko tàllal micro wala boog laaj tontu dox seen diggante Moussa nag la moo xam ne daal mooy maanaam loolu moom bu ko Papa oyofal maanaam daanu boobu mu daanu moom jërul mu di ko oyofal na ko xool bu baax a a ku mbir la moo xam ne daal ah waaw war nañ koo seet bu baax a keneen koo xam wax na ci tamit suñu papa yi bu njaay ñoo nekk microcentral ci làmb ji moom li mu wax moom na mbir moomu daal ah mën na nekk ñaari affaire de mën na nekk loo xam ne daal mën doon ngëneel ci moom waaye mën nekk safaan ci moom kon mbir moomu daal jar seet mooy jëllu papa Sow ñii moom dañoo war a bëri la 14 kooku kan la ambulance ak kii di naaru soga ñoom ñaar nag yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ci mardi yoo bi fi mu xëy ñëw nag maanaam nag dañ ko laaj ci diggante Modou Lo ak Lac de Guiers xamle daal mooy ñoom ñaar li mu gis daal mooy bu dee côté Modou Lo la Samir daal ne bu dee ci wàllum technique wàllum xarañteeg yooyu Modou moo ko ëppale Lac de Guiers 2 waaye favori nag moom nee na Lac de moom mooy favori Samir nag moom moo wax loolu moom nag entraîneur u la waaw moom moo wax loolu de bu dee nag dañu dem Sandaga laaj dafa seen xalaat ci combat ñoom daal ah daa mel ni ci Valdo nag nee na bëgguma kenn ginnaaw bi ma daanu maam Góor ba pare ñu ne ko Valdo léegi foo mu ne kenn rek waaw ñu ne ko kan mu ne ama neex bu tëngéej ñu ne ko déet Valdo mu ne ax akañ ama neex ama neex moom nga xam ne a daaw la fi jóge woon bàyyeeku wuy ji boromam waaw ñu doon ko sargal fële ci seen dëkk moo tax nag yéeg li kaay bi xëy ñëw ci loolu waaw daal ñu fàttali am ñu bëri bëri ñu wax ci moom waaw maanaam daal ay mbokkam ak yaayam ak kii ne woon borom këram ak ñu bëree bëri daal seet nañ ci moom ay seede yu ay seede yu rafet a rafet kon kooku nga xam ne moom mooy Fatou Gueye ñu ngi koy ñaanal ci turu Lutte TV yàlla yërëm ko xare ko aljana waaye tamit di fàttaliwaat rek di ñaanalaat Serigne Sidi Makhtar Mbacké ci turu Lutte TV point com yëpp ak groupe bi ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljana te taaf ñu si barkeem barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki fi nekk di Serigne Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal yàggal fi xalif généraux yi nekk ci réew yëpp def jàmm ci réew mi